mooy guddi Cheikh Ahmad Tidiane euh, ñu koy toftale laylatul xatmiya bu famille Assane Dème bu Medina Baye di organiser mooy daje bu mag a mag boo xam ne souvent délégation boo xam ne gouverneur moo koy jiite moo fay dem donc guddi bu mag la daje bu mag la léegi ci ci daje ci réunion boobu CDD bi service yi yëpp ñoo ñoo ñëw police euh, sapeur euh, médecin euh, service d'hygiène ONAS UCG mairie Kaolack ak yeneen service bu ñu defee réunion bi ba pare man en tant que préfet représenté président de la république représenté état bi day leen jéem a dalal seen xel di leen wax ni ñun agent de l'État suñu mission mooy taxawal askan bi taxaw bu bu rafet te doo leen laaj dërëm bu neexal service bu nekk dina def liggéey bu mu ko war pour bés bi ñu réussir jërëjëf wax nañ ci wàllu wërgu yaram ah ci ko waxee daal. waaw matuwaay bi dinañ ko jël ñaax nañ service bu nekk liggéey bu mu ko war mu def ko parce que état bi loolu la sañ sañ service bu nekk liggéey bu mu ko waar mu mu def mu nekk affaire wërgu yaram. médecin bi ñaax nañ ko mu mu def liggéeyam comme nu mu ko nu mu ko war ndox bi tamit moom tamit joxe na engagement ni dina respecter charte bi parce que état bi loolu la ñu sas liggéeyal liggéey bu mujj ayib askan bi te doo laaj benn dërëm laaj benn donc euh, nous nous sommes euh, réunis ici aujourd'hui euh, en CDD pour la préparation de la nuit de Cheikh Matidiane Chérif dénommée Lelatul Khatmia, organisée depuis longtemps par la famille euh, Hassan Dem de Medina Bay, bien qu'il y a aussi d'autres familles qui l'organisent. Pour ce qui est de celle organisée par la famille Hassan Dem, c'est souvent le gouverneur euh, de la région en personne qui dirige la délégation. C'est pour montrer à quel niveau l'État tient à cœur la réussite de cet événement. On s'était rencontré aujourd'hui avec l'ensemble des, des, services, à savoir euh, la, la police, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, le médecin-chef de district, l'ONAS, l'UCG, la CSA, Sécurité alimentaire et, et d'autres services. Et tous ces services ont donné leur engagement pour la réussite, une réussite totale de, de l'organisation le, le, jour J, à savoir le, le, le 16 octobre. Et le préfet, en tant que représentant du président de la République, représentant de l'État, j'ai tenu à rappeler la mission première de tout agent de l'État, c'est-à-dire être là pour l'intérêt général. C'est le service public, travailler pour, correctement pour la, la, la, la population. et sans demander aucun franc en, retour. Donc c'est sur cela qu'on a clôturé cette rencontre. Nous prions que tous les... فطرها مجد عاشق فيك